jeex man bëgguma ko ma nettali euh, Mouhamed moo tax damay sonn télé yëpp lay raatale ma man du ma nelaw guddi <laughs> loolu yëpp lay parce que ku ma nettali maa ko seetaan ko seetaan ba mu jeex tey bi ma jógee julli juma bi ma julli jee juma ba ñëw yàlla def TFM tegaat ko ma seetaan ko ca njëlbeen ba mu jeex kon kenn nettaliwu ma ñett ma gën a neex ay mbakki yu fay yal na ko yàlla fay eh, man de dama ne mbakki yu fay état bi waroon nañ seet ci moom copier ci moom laaj ko ndax amul ñu mel ni moom damay ñaan rek état bi nañ woo mbakki yu fay ci pet ne ko ndax am na ñeneen ñu mel ni yow xam nga lu tax intellectuel la dama ko dégg muy làkk tubaab sama xol sedd ma ne mu ngi doose ministre yi di mu ngi leen di wan ne taalibeb Sëriñ Tuubaa la te yóbbu leen ma dara làkk tubaab yu weqat dugg ci wolof yi wolof yu set wecc yoo xam ne sax du am taasu tubaab xam nga loolu ma neex ci murit yi ñoom am muñ complexe Sëriñ Tuubaa nañ koy waxee lañ koy waxee ñu ne ñoo fi nekk di araba si xaj malik ñun arabal moo ñu tardel li may wax yéen ñëpp xam ngeen ko murid yi seen accent benn la duñ ci rax dara parce que dafa dëggu xam naa waxtaanu Maodo bi dañuy bàyyi ba àjjuma bii di ñëw waaw boobu dama koy def à dañuy bàyyi ba àjjuma bii di ñëw waaw boobu bee ajjuma bii di ñëw ku bëgg fekkee ku bëggut bàyyi aj naa ko ba ajjuma bii di ñëw mbakki yu fay lim def defar na senegaal man mbakki yu fay mosuma ko nuyu na leer nag damay bañ ñu naan day dóor am na ku rusa dóor man dootu bu ma doon dóor war naa bàyyi dóor damay won nit ci waxuma ko dama koy wax ngir yàlla damay won nit ñi ne man passé naa dóor ndax yi nit ñi de xëccoo am naa ko bu dee mbooloo it buñ kenn kennalee kenn ëppale ma ko senegal damay wax rek te yàlla tax te man dong dem ah waxuma ko de ne man dong la waaye bariwut de may taxaw ne gaa yi ñibbi leen woowuma kenn dëgg la wala du dëgg te du tax gaa yi ñibbi day wane ne yàlla laa ànd ak ñoom man soxlawuma taalibi déggoo ma ne leen man bant laa bëggoon a doon ku bëgg a doon dan bant di nga nekk taalibi billaahi wal kitaabi cheikh bi bu la neexee woo ma yónni ma maraam lu may wàññi boo bëggee maraam ba ci sa kër boo foo ma yónni ma demal loo ma sant ma def lu may wàññi gis nga yu baax yi nañ koy jëflante te di ko waxlante man sànniwuma kenn fleur li am rek laay wax lii mbàkki yu fay def kenn nettaliwuma mbàkki yu fay wax ma dégg de mu ne man mbàkki yu sëriñ bas Abdou Khadir sëñ di Maxtar mbakki sëñ mun Muntaqa mii am na keneen kum ci teg fàtte na tul Cheikh Ndiaye mu ne ñoo tëju cib nii sëriñ bi dënk ma liggéey bi mu ne ma ne ko sëriñ bi ñett yi de duma la ko def duma la wor mukk duma la fen mukk duma la sàcc mukk mu ne ko ñett yi de moom mbàkke duma la ko def duma la fen mukk duma la wor mukk duma la sàcc mukk mun ne yëkkati cent million jox ko ne ko maa ko tàmbalee ci liggéey bi ah <laughs> cent millions acca ñi ko yéene seen sëriñ bariwut de moom kay na ngay dem ci sëriñ bi naan ko sëriñ paasu Tiwaawan dëgg la wala dëgg ñii dañ leen di laaj paas bañ bañ bëgg a dee ñii boo leen gisee nga taalibe yi rang nga yaakaar ne dañuy indi 10 pour cent yëpp bu dee 10 9 yee yëpp dañuy laaj kenn cay joxe te kay joxe joxe kuy jooy lay doon bu duloon yàlla ji ñu am billaay wal kitaab yi ñëpp yërëm leen waaye kenn du leen yërëm ndax ku ànd ak yàlla kenn du la yërëm mu ne ma yëkkati cent millions jox ko sëñ Bas mu jox ko ñu def ko ci liggéey bi mu ne lu ne dégg naa ko ci kon nga xam ne bàyyiwuñ wuñ kenn sëñ Bas Abdou Khadir jël kàddu ne lu ne dégg naa ko waaye tey jamono àtte nañu àddina àtte nañu ndax mu ngi nii waaye sama xol bi sedd maa ko déglu kenn nettaliw ma mbakk yu fay jooy sax def na ko etaa nag war na ci jànge xam ne nekkati am na ñu jub ñu nekk ci réew mi am na ñoo xam ne boo leen dënkee kees duñ ko lekk te soxlawuñ ci dara ma sama xel dem ci li Cheikhul Hadj Abdoul Aziz waxoon bés Medoune Fall boobu moo doon ministre de forces de armées mu ne mu moom la joxeñ keroog ne ko Medoune yàlla na ko yàlla yërëm mu ne ko réew mi am na fi ñoo xam ne jub nañ maandu nañ géppuk maandu su ngeen leen joxe poste du ñu ca laaj oto du ñu ca laaj kër du ñu ca laaj solde te dañ ko doxal ni ngeen ko bëggee jox leen leen ko ñooñu maa ngi toog kenn nettaliwu te loolu am bete mbakki yu fay a ngi nii exemple la wax ba jooy daldi ne nag sëñ Bass non sama yaram dafa daw caabi yi 78 porte la xajul ci kees gi maanaam porte yi ci jumaa ji mu ne ko 78 port la xajul ci kees gi waaye yi ci ëpp ngi nii ci kees gi liggéey bi mat na sëñ Bas yow lañ ma boolee loon mu ngoog caabi yaa ngoog di ne indil ma nag sama àddiya ñu indi malet bi mu ne trois 300 millions moo ci nekk man mbakki yu fay maa ko joxe àddiya ku mën na def waaw man li may wax c'est très ku mën na def lii wan na exemple ñépp ne réew mi mën nañ ko defar état na jël ñu mel ni sëriñ si kenn ku nekk utal ku mel ni mbakki yu fay léegi lépp dox alal xaq ay bu dee état kum dënk kees nga këppoo ko ñu dugal la ci kaso bi nga def fa fukki fan ak juróom weer juróomi at ñu génnee la ngay gundaandaat di dawali oto mooy tax réew mi jox <laughs> nañ waxante dëgg lii fi xew di ñu ne yóbbu na nangami milliard dem tëdd bu pen bi jeexee mu ñëw lekk milliard am di ñu xool lekk na centaine de millions dem kaso tëdd bu pen bi jeexee mu génn ki milliard di campagne boole ci mais na état wax ci lii nii mbakki yu fay def exemple la pour tous les sénégalais kuñ ci dënk liggéey melal ni mbakki yu fay kuñ ci dënk poste de responsabilité mel melal ni alaaji mbakki yu fay ci njub ci maandu ci wax dëgg ci bëgg liggéey ndax bu bëggutoon liggéey durant sept ans mën na caa cofte te laal doom ne benn kilifaa ko waxoon Serigne Cheikh duma tudd turam Serigne Cheikh nee dañ ma jox àddiya vingt cinq millions def ko ci malet mu ne bi ñu indee xaalis bi ma ne diw jëlal xaalis bi yóbbu ko ñett lañ te ñett ñëpp xam naa leen waaye duma tudd seen kër kenn ki moo ne sëriñ bi xam nga li ci malet bi sëriñ bi ne ko xam naa ko mu ne ko vingt cinq millions moo ci nekk mu ne ko après ah nga koy delloo noonu noonu noonu mu ne ko mu ne ko tee nga maa may ma laal ci te ma cof ci te laal dóom <laughs> mu ne sëriñ Cheikh tee nga maa may rek rek ma cof ci te laal dóom sëriñ Cheikh ne boo ko laalee dee dee yóbbul joxal ma ko ne ko xaj na ca njaboot ga beneen bi ma fekkee kenn nettaliw ma kookoo ngi dund di ma xulli fii ma di ko xulli te bu ma tuddoon tey àddina tukki cinquante millions lañu jox Cheikhul Hadj Abdoul Aziz mu indi ko jag saw góor gi ne ko ku la jox lii billaay xam naa ko ko ko jox xam naa ki ko indi mu ngi dund ki ko ko jox a ngi dund Cheikhul Hadj Abdou ci jag saw cinquante million mu ne ko ku la jox lii mu ne ko diw mu ne ko yóbbu ne ko xaj na ci réew mi na ko ci def te bul jàdd fende waa ji ñëw ba tëngeej kuuj maa la ko wax génnee ci vingt yu saf sàpp ndax moom moo ma ko nettali ci gémmiñam dama waay ci barke Sëñ Abdou ma génnee ci vin yu saf-saf am nu ma ko def rekk delloo li ci des mu ne ma waaye cinquante millions delluwaat noonu waaw ah. ah. ah, xool leen yombul nag laa ilaha illallah muhammad rasulullah cheikh bi ah dafa yombul de li mbakki yu fay def dama leen di won ne yombut ah te kookoo gi fii di ma xulli moo tax léeg-léeg ma gis ko ci média yi rek yëngal sama bopp ma ne ci yàlla na fee moo tax gis nga Cerno Yaxya li daan na ma ko wax daan na ma wax ne doom moytu leen di fekkee lu bon mu ne ndax sama maam daan na wax ne ki fekkee lu bon moo gën a dugg ki def lu bon waaw mu ne ndax yow mi ko fekkee saa yoo gisee ki ko def sa xel dem ci mu ne te amaan na moom tuub na ko ba yàlla baal ko ko mu ne te yow nag saa yoo ko gisee rek sa xel dem ci looloo ma dal ak waa ji nag wallaay mu ngi fii di dund te day génn ci télé bi lu bari nag fu ma ko gisee ne vingt ya saa ya nga vingt yi de léeg-léeg sax ma ne boo demee vingt ya tax mu toll nii sax ndax boobu vingt millions yombut ah li may wax ni ci ak at 95 la boobu la Amina mi sëy nii sama doom bi sëy fii bu yàggut ci lay door a judd 95 la boobu Amina mii ma mayee bu yàggut ci lay door a judd mbakk yu fay yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla fay te maa ngi ñaan réew mi état bi nañ seet ñi mel ni mbakk yu fay ñu di leen dënk poste de responsabilité yi ñu defaral ñu réew mi ngir yàlla ndekete woo ay mbakk yu fay a ngi fi man dimb dama jommi yàlla xam na ko nit ku bëgg lu baax boo gisee loolu te dégg ko billaahi di nga xam ne lii honneur senegal la te li ma ci gën a neex nag mooy njub gi dangay ngay yëg ne alaaji mbakk yu fay daf koy wax avec fierté mooy lekkuma seen alal ndax man dama suur ba noppi loolu la leen won xam nga ki génnee 300 millions joxe caabi yi teg ci 300 millions ne lii mooy sama haddiyee ci jumaa ji daldi ne mosu ci jënd billet avion mosuma ci jënd crédit téléphone mosuma ci paas ah, sëñ bi dem ñi jub am na de man nag fu lu baax moom billaay fu ma ko gis wax ko ndax alalu ñëpp la ñëpp a ko bokk te lii dafa war a servir leçon ñëpp man as ñi sii rek bi ma koy tabax tuuti ma dee ndax triande yuñ ma triande lekk guñ lekk sama xaalis ma ne mbakk yu faye fi man man as néeg sii rek tuuti ma dee moom 20 milliards mooy jumaa ji 20 milliards yu teggeekuwul benn dërëm waaw na ne loolu la mën a présenté mu ne waaye ëpp na ko moom ci boppam rek sëñ Bass Abdou Khadir nee na lim ci def ñemewu ko wax moom mbàkki yu fay mujj na sëñ siidi Maxtaar daf ko daan wax ne mbàkki yu demal noppalu te nelaw sa jëmm fekkewu ko sa dërëm fekkewu ko ndax bëgg rek mu baax mu ne am na bés boo xam ne 400 millions la sëñ Sidi Maxtaar yëkkati jox ko pour moom pour moom de mbàkki yu mu jëlaat ko dugal ko ci liggéey bi waaye nañuy waxlante yu baax yi ah ku sa xel di xot ku sa xol di xëtt de bul romb guy murit masaalikul jinaan borom xol bu fa romb dana rot xol bi dana rot man maa la ko wax wala xanaa nga romb gëmm te oto mën na laa fiir <laughs> ah waaw mooy dëgg ah boo rombee gëmm oto mën na laa fiir boo di gëmmee sa digg rajo yi man mi yàlla nakkal nag man kër sama kër sële si Sacré Cœur ana Maodo mu nga ne le xale yi sama doom yële ñoo dëkk Sacré Cœur xam nga événement bi fu ñu ko seetaanee démb ci balkon ba ci balcon bi laay taxaw di seetaan yëpp lamp yi mel ni panaal Maodo ngi ne la du ma bàyyi ma fen day xool jumaa ji xool télévision bi liy génn ci jumaa ji mooy génn ci ci ci fi ñuy seetaan man man faas laa def ak jumaa ji ma ne yàlla ma nàkkal waaye bu ma yàlla natt woon bu ma xëyee ne ko jaar rek sama xol bi wàcc léegi ma dem hôpital wala ma dem barna parce que lu baax boo ci dul kontaan sa xol bi mooy dagg waaye boo ciy bég nag dangay gën a gudd fan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne dee leen xool lu taaru dee leen xeeñ lu neex ñu ne ko lu tax mu ne ndax day guddloo fan mu ne waaye bàyyi leen di xool lu ñaaw ak xet gu naqari ñu ne ko lu tax mu ne day gàttuloo fan xet gu naqari day gàttuloo fan waaye lu taaroo nii boo ko xoolee rek boo fa julliwut it nag dëgg-dëgg dinga yëg ne fii ki ko def bëgg na yàlla vingt milliards am na fu mu xajoon ca Touba ñaata taalibe murit a ko soxna te mag yu fay la ma gën a neexati ca ña ña doon joxe 1000 francs yeeg 500 eh, yeeg ñu la njëkkee sant leen ba pare door a gërëm borom mi million yeeg borom mi milliards yi ba pare ne ñi ko jox nag te nanguwul nanguwuñ mu tudd seen tur ñoo ëpp foofu ñi joxe mu tudd leen mosuma gis transparence bu mel nii dal di ne 313 caisse man discours am yëpp fii man kañ booy wax nii laay def rek trois cent treize caisse la daaj nee na luy génn sama signature la bu sëñ Bas ak bu xalifa bi ah bon gouvernance de mu ngi noonu <laughs> ministre de bon gouvernance war na xool ci mbakk yu fay bon gouvernance a ngi noonu man yii laa bëgg réew mi nañ ko jox ñi ko mën a yore ñu yor ko waaye buñ ko jox seeni xarit wolof dafa ne fas bu ko jox sa xarit jox ko ki ko bëgg ndax soo ko joxee ki ko bëgg rek mu toppatoo ko waaye boo ko sa joxee sa xarit booy del si fekk mu yooy parce que amul jotam kon yal na ñu yàlla defal sutura yal na ñu yàlla defal sutura